taaliq ci nit koo xam ne bëgg na moom faw mu jot ci liñ ko digal mooy suñ ne la woon juróom benni bunt nga ne am na ci bunt boo xam ne boo ko ubbee da nga ci fekk loola bégloo soo bëggee jot ca la nga loola ñu fa denc da ngay ubbi bunt bu nekk fes yi ja dugg waaye boo jàppee benn rek dugg ca yem ca kon mën naa doo ci jot kon wane ne ne ko nit ki dafa war a farlu toujours rawatina ci weeru koor guddi gu ngir dàq li nga xam ne mooy laylatul xadr booba suñu borom mën na ko caa mën na ko caa yamale kon loolu yëpp indi na ko wax na ci ay màndarga yoo xam dañuy xamee ne tey jii la guddi laylatul xadr lépp nekk yu wax yu am solo yoo xam ne leer na lool ba képp ku doon topp da nga mën a jariñu bu baax a baax ci waxtaan kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon dañuy jàll ci pàcc bi nga xam ne moo ci topp mu nekk loo xam ne dafay ëmbaat euh, guddi gi ndax dafay jëm ci weeru koor ak Cheikhul Xadim weeru koor mi nga xam ne sunu borom wax na ci lam ci wax Sidi Muhammad dina ci ñëw duñ ci tàbbi ndax dañ koy ubbi rek waaye dañuy xam ne kan mooy Sidi Muhammad Sidi Muhammad Jasara ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi kenn la ci njaboot bi nga xam ne mooy njabootu sëriñ bi surtout ci sëñ bi nga xam ne ñu ko tudd ñu xam ko muy Baye Sëriñ Jasara nekk koo xam ne barab bi liggéey na ci liggéey bu rëy ba mu yegg si fii mu yegg si ba toujours ak njabootam nekk ci di ci liggéey ci liggéey sëriñ Mouhamed Diatara moomu kon bokk ci ñi nga xam ne dañoo feeñe jamono ci dëkk bi jànge fi alquranul karim jànge ko ci daaray maamam jooju jàll ci yeneen daara mel ni daara sëñ Alxaj Buso Ndumbe gannaaw ba mu jàng ci li nga xam ne moom lañuy jàng ci dëkk bi ci wàllu majalis ba yeggal fañ ci yegg ginnaaw ba mu génn dem bitim réew jàngee fi nga xam ne mooy Maroc moom it génnee fa lii di master gannaaw ba mu ngi gëstu nekk jàngalekat jaar fi nga xam ne mooy école normale normale supérieure génnee fa euh, def ay gëstu yu bari yoo xam ne mënees na ko tudd waaye ngir xatu waxtu wi mën na ci tudd lu mel ni mën manhaju taalum wala taalim inda Cheikh al Xadim jàngale daal ni ko Sëriñ Tuuba pratiqué ni nga xam noonu la ko Sëriñ Tuuba déggee te doxalee ko moom bind na ci loo xam ne ku ci def di mën nga caa jëriñ bu baax a baax kon euh, Sëriñ Muhammad moomu mi ngi war a waxtaanee weeru koor bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom farataal ci jaam yi tënku ci Euh, leeral ci nag farataal gi mu ko farataal am lu ne ci ginnaaw muy laallakum la jooja mu waxoon Sëriñ Tuubaa tamit ñëw am taxawaay bu mu taxaw ci weeru koor taxawaay boo xam ne day mel li sunu boroom dige woon ci ku weeru weeru koor joxe ko ni mu ware la nga cee amee Sëriñ Tuubaa jëmmal na ko ba tax buñ jégloo waxtaan wi danañ mën a xam nan la ka la ñuy jariñoo ci weeru koor ak ñi ko Sëriñ Tuubaa doon dundale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 suma salaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin dawi ridwani wa tamkin ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu mbooleem ñi nga xamante ne nii ñoom ñu topp di ci jiital alxalifatul am li taaifatil muridiya muy sëriñ muntaxa di ko ñaanal sunu borom yàgg fi may ko wér ak naal li nga xamante ne am ci yoonu lislaam yi sunu borom may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko tàmbali yeneen te ñu fekk lépp di ziyaare ki nga xam ne mooy suñu sëriñ suñu waajur Cheikh Mouhamadou Moustapha Diatara di ko ñaanal moom itam borom may ko kàttan ak wér ba li nga xam ne moom la am ci lislaam ji yoonu muy bi sunu borom may ko kàttan ak wér mu àggale ko di ziyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk jataay bi di ci jiital suñu waajur suñu kilifa suñu royuwaay muy sëriñ xaadim silla di ko ndokkeel ci weer wi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di sant bu baax di gërëm ñi xamante ne ñooy taxaw taxawaay taxawaay yu am solo yi ci daara ji di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm defal leen xeewal ci jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf te lislaam rek tax ak liggéey seexul xadim suñu borom fay leen ko di beral ak cant bu baax a baax ñi nga xamante ne ni ñoo koy jàllale ci xarala yu bees yi muy réseaux sociaux yi ngir xat-xati jamono waxtaan wi nag waxtaan wi tënku lay doon ci seexul xadiim ak weeru koor mbokk yi comme ni ngeen ko xamee Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul mi nga xamante ne nii mooy suñu royuwaay di suñu sëriñ di suñu kilifa ay mboolem ibaadaat yi yi nga xamante ne ni sunu borom da koo digle loo ci jël rek defe na ko noo xamante ne ni da ngay wax ne bi akmaliha wa atammiha boo jëlee julli boo jëlee naafila boo jëlee joxe boo jëlee lu mu mën a doon ba weeru koor wi ñu ne defee na ko noo xamante ne nii roy waaye la ciy doon boo xamante ni nga gisaat koo xamante ni da nga ci gisaat ku ko ci man day mel ni du mën a am kon ñu yaakaar ne jaadu na nag kon ñun lépp loo xamante ni dañ koy def ci diine ji moo ñu ko jàngal ñu jéem a def ay jukki ci li nga xamante ne nii jàngale na ko ci weeru koor ak jéem a leeral tuuti ci naka la ko daan dundee tom bu njëkk bi rek li ci njëkk leeral mooy Sëriñ Tuubaa nan la jàppee weeru koor man mooy weeru koor ci am njàngaleem comme ni ko ñëpp di leerale boroom xam-xam yi ne koor dafa am ñetti xaaj koor koo xamante ne ni xëy na ñu ëpp ci nit ñi ñoo ko man muy alawaam ak koor gi nga xamante ne nii dafa am ñu ko jagoo ak koor goo xamante ni dafa am ñoo xam ne maanaam ay maanaam ñooy ñi ko gën a gën a man ñetti xeet yooyu ñooy woo ki ci njëkk nag moom la suñ tubaa di wax naan summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi adamil akli fa xat laa taxtarir fa rubba saaimin maa aljamaa laysa lahu fihi siwa almajaa loolu la boroom xam-xam yi wax mooy koor goo xam ne ki koy def amu ca lenn lu dul ab xiif moom daal koor gi daal bëccëgu koor gi leen dong la ca def muy ñàkk lekk ak ñàkk a naan waaye la nga xamante ni moom lañ jubla ca koor bëggu ko ca muy meññan mi muy sàmmoon tese ak lépp li nga xam ne sunu borom dala ko aaye nga bàyyi ko ba ne ca li nga xamante ne ay nawaafil la it nekkoo ca kooku moom la ñuy wax kooru am ah, mooy koor gi nga xamante ne daanaka ñëpp a ko man mooy koor gi nga xam ne daanaka sax xaayawaan yi mën nañ ko mooy toog lekk ñàkk a moom lay tënk ci bayit woowu gi nga xamante ni nag mooy kooru ñu baax ñi ñi nga xamante ni dañ koy def ngir sàkku yàlla ngir bëgg am meññatum koor moom lay leeral ne fa sawmu an yasuuma kulla udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi nee na koor nag buñ koy wax nag du caagee ne rek ñàkk lekk ak ñàkk naan waaye mooy koor gi nga xam ne boroom bu ko defee day sàmm mbooleem ay cëram ci lépp luy ay mooy yàlla waxuma la sax sàmm ay cëram ci mooy yàlla ginnaaw bu nga ko bàyyee waaye day yokk ak jaamu yàlla da koy yokk bu daan julli julli farata dana fexe ba yokku ca ay la bu daan jàng alquran ñetti isib dana fexe ba ba koor gi ñëwee mu yokk ko ngir xam ne dafa nekk ci weer wu tedd weer wu mag kooku nee na kooku mooy aji woo ji dëgg ne ki ca gën a raw nag ki nga xamante ni nag moo gën a mën a moo gën a baaxle koor nag mooy koo xam ne wa kullu fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin wa liman mooy koo xam ne dépassé na ñoom ñaari ñëpp mooy moom waxuma la ñàkk lekk ak ñàkk naan waxuma la sàmm ay cëram waaye dafa dem sax ba téye am xelam te loolu yaakaar naa lu jafe la waaye nag ku ko jéem man ko boo jéem man ko ndax bu ko jàngalee rek mooy manis naa kon nee na ñetti façon koor yooyu moo am ginnaaw bu ñu jugee ci xam ci nan la jàppee woon koor ci gàttal dañuy wax ne sëñ bi nan la sonnee woon koor nan la jàpp nan la sonnee woon koor nan la ko fonkee woon comme li ngeen ko xamee rek sëriñ bi dafa fonkoon mboolem xeeti jaamu yàlla yi koor sax daawul bàyyi ba weeru koor rek ñëw mu ko daan def waaye boroom xam-xam yi ak ñi ko fekke woon leeral nañ ne lii ëpp ci ak dundam sax daka daan woor waane weeru koor joxoon na ko àq ak dayo boo xam ne ñi fekke woon jamonom nee nañ bu masaan di jublu si dana ànd ak mbégte dana ànd ak kontante ba nit ñi sax dañ daan yàkkamti dem ci moom yëgal ko ne ko weer wi feeñ na ngir ne kay njëkk ñëw wax ko ne ko weeru wi feeñ na dana jox ay hadaaya yoo xam ne yaakaar naa ba at mi dellusiwaat siwaat nga ci mën a jariñu ba tax na sax am na ñoo xam ne ziyaara yi ñu ko daan ziyaara ngir xam fonk gi mu fonk koor ak teg gi mu ko teg fenn dañ dañ ko bàyyi ba koor weeru koor ñëw rek ñëw ziyaara si ko ngir xam ne bu ñëwee dana jox loo xamante ne nii dana nekk lu am solo ngir xam fonk gi fonk weeru koor moom nag weeru koor moom boo ko boo ko liiree ci xasida googu di yaa xayra dayfin ataa ni mu ko ni mu ko indee daf ko jàppee ni jëmm joo xam ne dafa bàyyi ko ci sunu boroom di ñëw di seet si jaam maanaam suura xayaalee boobu la ko jox mooy dafa mel ni jëmm joo xam ne gan la gan nag bu dee sa doomi sëriñ bu dee sa doomi kilifa wala kilifa goo fonk rek buy ñëw yow dina am noo koy waajee dina am waajtaayal boo koy def mooy ci gàttandu ga ca teeru ga ca teraanga ja ca yóbbal ba loolu lépp danga koy defal weeru koor nag Sëriñ Tuubaa image boobu la ko jox boo jàngee yaa xaree day fi na ataak ndax boo xoolee ne moom dafa gàttandu day wax ne nan la ñuy gàttandoo weeru koor yi jàngal nañu ko ci xasiida gi weeru koor yi bu ñëwee nan lañ koy dalalee jàngal nañu ko ci xasaayit gi waaye bu ñëwee nag jan teraanga lañ koy jox lan la soxla teraanga jum soxla jàngal nañu ko waaye buy demit ban yóbbal lañ koy jox wax nañu ko loolu lépp boo settantelee xasiida gi yaa xayra day fi di ko ci gis mu mel ni wooru koor daawul xaar ba mu ñëw rek mu koy soog a def waaye da ko daan gàttandu daa ko daan gàttandoo ca rajab nga xam ne da ko daan foofu la ko daan waajalee ci yokk ay ibaadatam doonte sax nag moom toujours mi ngi ci waaye dana ñëpp danay jëg ne am na lu sëñ bi di waaj muy ca rajab nga xam ne dafa jàppe woon ñaari weer yooyu muy rajab ak saabaan dane woon rajab dafa mel ni ab nawet mu mel ni dafa mel ni rajab dane mooy ngelaw li saabaan moom mooy niir bi waaye weeru koor moom mooy taw bi kon loolu lépp day mën a ànd muy soog a mën a taw moo tax moom mu daan moo ko daan waajee ca rajab moo tax nga koy dégg ci biir xasaay gi mu naan ilayhi qad tubtu fi saabaana an rajabin mujaddidan fii ka fashhad lii bi tarkidadi loolu mooy tertu gi weer waa ngi ñëw maa ngi koy gàttandu lu ma koy gàttandoo mooy ay tuub ak ak jaamu yàlla goo xamante ni gu spécial la guy wane ne am na luy ñëw mu mel ni ki genn gi gis bis bu mu ko waajalee di ko teertu di ko gàttandu su ñëwee ba agsi it am na nu mu koy dalalee dalal gi moom ngay dégg mu naan la yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi mooy gan gi moom bu ñëwee comme da koo jàppee comme jëm buy wax ak moom day mel ni kum jàkkaar lool jëfandikoo yaa yaa xayra yaa koo gis nga koy wax yow mii ngeen ji gan ñëw nga ànd ak jàmm ànd ak xéewal waaye maa ngi lay dalal maa ngi naan la ahlan wa sahlan dalal ak jàmm waaw léegi nag bu ko dalalee ba pare mu leeral nañu nag lan la koy jox comme berne gan gi ñëw na waajal na ko dalal na ko toog na lan la koy jox berne berne gi la naan laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xirat taaati wa sadadi mooy gan gi ñëw na agsi na toog na waaye dinaa ko bernde gan gi nag genn berne rek la bëgg mooy jaamu yàlla ak topp yàlla moo tax bu ñëwee may itam loolu laa koy bernee noonu laa koy noonu laa koy eh, jox comme lu mu bëgg li tax nag mu koy defal loolu lépp mooy dafa xam ne gan gi du ganu n'importe kii ndax dafa nekk gan gu màgg gan gu tedd ndax màgg gi sax du caa gën a waa àdduna waaye fa yàlla sax dafa màgg moo tax bu ñëwee dama koy teeru teeruwaay boo xamante ne ni na mu jugee ci yàlla noonu laa koy teeroo moo tax nga dégg maanaam comme yow da màgg fa yàlla muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi da ngaa nekk gan goo xam ne doon ganu bu ndaw da ngaa nekk gan goo xam ne waxuma la sax waa àdduna waaye fa nga jógee sax dañ laa jox cër muy sunu borom subhanahu wa taala ndax loolu daway leer ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax naan yàlla nee na koor moom ay mbirama moo koy fayal boppam kon cër bu koor am fa sunu borom subhanahu wa taala am moo tax sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wax ah, moo tax sëñ Tuubaa comme gan gi noonu la toll fa yàlla muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi gan la goo xam ne dafa màgg fa sunu borom waaye du gan goo xamante ni nag bu ñëwee ñëpp a koy mën a teral dafa am catégorie goo xam ne rek ñoo xam dayo koor mooy at tuqa al muttaquun mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ak ñi nga xam ne dañu am xam-xam ak ñi xam ne dañoo nekk ci ak njub ñii rek ñooy xam dayo koor ba bu ñëwee ñu mën koo jox gëddaam moo koo xamante ne ni gi day ñëw waaye du changer dara ci comportement lu changé dara ci ay jëflanteem kooku kon da koy mën a boole bokkut ci catégorie gii di sëñ Tuubaa di wax ndax bu ci bokkoon lii sëñ Tuubaa di wax koon dal dina ko dal mooy dana ko jox cëram voilà léegi nag gan gi bu ñëwee it sëñ Tuubaa ci image bi mu jox koor dafa mel dafa indaale sërica sërica bi mu indaale nag moom la lay leeral naan sërica baa ngi nii gan gi bu ñëwee màgg gi mu màgg moo tax indiwul sërica bu tuuti sërica bu duum bu am solo la indaaleel àdduna muy la zilta maaxiya aw zaarin wa xaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxalali mooy sëriñ boobu la indil wàdd na mooy dafa ñëw ngir fekk nit ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ay bàkkaar mu effacé leen ko ci buñ jaamoo yàlla ci ni ko yàlla digle kon benn sëriñ bi mooy boobu mooy far ay bàkkaar beneen sëriñ bi mooy faj ay aajo aajo beneen sëriñ bi mooy maanaam dàkkal la lépp loo xamante ni lu bon la kon ñetti sëriñ yi bokk na ci li nga xam ne gan gi buy ñëw moom la indaale waaye yemu ca wa bokk na ci sëriñ bi indaale kulla shaytaanin bi ma maahu wa mutxifan li sa li zawil ihsaani bi safari sëriñ ca beneen bi mu indi mooy day fexe ba ñi nga xamante ne ni am nañ yéen ay jaamu yàlla te seytaane man leen te seytaane téye leen te seytaane sonal leen bu ñëwee day leen koy jéngal ba lu ñu bëgg a def ci ak jaamu yàlla rek ma defal leen ko sëriñ ca boobu la leen indil mooy wa saafidan kulla shaytaanin bi ma maahu wa mutxifan li zawil ihsaani bi safari foofii da nga fiy leeral ne wa mut wa mutxifan li zawil ihsaani bi safari mooy dafa mel ni am ñoo xam ne weeru koor munuñ cee dañ ci dañ ci def ak mooy yàlla day mel ni bu weeru koor ñëwee ñoom lañ daan def ci weeru yi ci des rek loolu lay def waaye kooko da ngay jàppee ne kon bokku li sabil ihsaan waaye ñi nga xamante ni dañoo bokku al ñoo ñooñu moom bu weeru koor ñëwee moom dañuy mën a jaamu yàlla ndax boobaa saytaan weeru koor bi da leen koy jëngal ba yooyu yëpp luñ ko mën a def ci ay mooy yàlla beneen sërija bi nga xam ne weeru koor da koy indaale mooy wa muzhiban kulla ahzanin nadiqu biha fi dahri afidatan yaa muzhiban di mooy day fexe ba weeru koor doo nekk ci stress njàqare li nga xam ne mooy tiital nit ñi di jaaxal nit ñi yépp bu weeru koor ñëwee jaww bi muy indaale jàmm ji muy indaale xéewal gi muy indaale moo tax nit ñu bari bari ak ñu baax ñi seen xol day feex moo tax fii jamono toll nga xamante ni mii ñu dugg ci weeru koor dafa mel ni feebar bii ñu naan corona dafa gën di augmenter waaye day mel ni nit ñi yëguñu ko li ko waral mooy weeru koor wi ñu nekk tedd ngaay weeru koor gi ak mag weeru koor gi ak sellu weeru koor gi moo tax sentiruñu ko ndax avant muy ñëw danga ngaa gisoon ne kaa yi moo gënoon a néew waaye da nga daan xëy suba di ko suivre di tiit foo toll jamono jii mi ngi mel ni kaa yi day gën a yokk waaye nit ñi kenn yëgu ko li ko waral mooy jaww bi bi ñu ne mu weeru koor bi ak jàmm ji ji nekk moo tax yooyu yëpp doo ko doo ko sentir kon bokk na ci sërite bi bi nga xam ne nag mooy sërite bi gën a dum te sëñ bi doon ci ko waxtaane mooy lii muy bëgg a leeral mooy yaa chahra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil qadri zaatil fadli war raxadi mooy sërite bi nga xam ne moom mooy sërite bi ci dàq mooy weeru koor dafa ñëw lu ñu sërite boo xam ne mooy laylatul qadri te laylatul qadri léegi du ma ci duggaat ci détails yi ndax suñ seexu naa leeral na ko indi ci ay leeral yu am solo ñu ko ci sant di ko gërëm kon lii mooy li nga xam ne weeru koor indi na ko comme sërite waaye nag gis nga bi mu indee sërite bi sëñ bi dalal na ko gàttandal na ko comme toog na li ci des mooy daa war a ñibbi bu ñibbi it sëñ bi daf koy jox ak yóbbal yóbbal bi mu koy jox nga xam ne dafa bëgg mu yóbbaale ko mooy lii mu lay bëgga a leeral mooy daf ko ne ko inni uhibbuka hubba zaati za talabin min maliki fiika isaadan bila awadi ñëw nga dalal nañ la dalal nañ la defal nañ lépp te xam nañ ne da ngay delluwaat ci yàlla waaye nag eh, booy delluwaat suñu borom boo fa demaatee ne ko xamal ko ne ko daal Ahmadou Bamba day ku la bëgg la ku la sopp la mi ngi ñaan ci sa daraja yow weeru koor nga ñaanal ko fa ak texe mooy texe àdduna ak alaaxira loolu laa bëgg boo demee nga yóbbaaleel ma ko bayeen yóbbal bi mu ne ko lishat bi axzi kitaaballahi fii ka huna ila irtixaaliya yowma sabti wala ahadi na nga seere ne de man de ku jàpp ku fonk téereb yàlla bi la yóbbal boobu nag ma ko yóbbaaleel boo demee daal boo demee comme gan nga da ngaa ñibbiwaat da nga da nga boo demee sa borom subhanahu xamal ko ne ko daal bi nga ñëwee ku la bëgg laa ku la fonk laa ku la too laa waaye bi nga ñëwee ku fonk alxuraan laa ku ko jàpp la loolu bokk na ci li ma la yóbbale nga maa ngi la yóbbaloo ne washat bi ka xubba zaati yaa amali wa kun xabibiya yowmal hawli wal kamadi mooy na nga seede fa sunu borom subhanahu wa taala dama laa bëgg comme ni ma bëggee jëm nit moo tax gis nga melal bi da ko melal comme melokaanu nit waaw boo fa demee nga maa ngi lay ñaan nga nekk sama soppi bis ba nga xamante ni dañuy jaaxle kenn du kenn waaye bis boobu bu ñëwee na nga nekk ki nga xamante da ngay nekk sama soppi di ma tinu sunu borom waaw walaat koy laa inni yaa chahra siyaami bila gissin fa ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adad gis nga kon Sëriñ Tuubaa nii la jàppee woon waru koor mooy da ko jàppee woon comme jëmm joo xam ne dafa tedd dafa màgg jugee sunu boroom jëm nag tedd dafa màgg jugee fa tedd buy ñëw am na noo war a doxee moom noonu mu doon doxee moom nag noonu la ko jàngale noonu ci yaa xayra dayfin ata borom xasaay gi noonu mu jeexee buñ jugee ci loolu nag dañuy leeral ne weeru koor dafa am relation bu am solo ak al muridiya tarixatul muridiya ndax ku ne xam na ne sëriñ bi ni mu fonke woon weeru koor ak ni mu ko daan toppatoo ak ni mu ko daan de ni mu ci daan def na sunu botti natt yooya mën nañ ne sax xëy na lool du weeru koor waane am na relation ak koor mooy bi nga xamante ni nii ni àtte nañ ko fële ca Ndar ba war koo yóbbu fële ca Gabon woor dafa woor doo xamante ne nii képp ku ab taalibeem ci mën a jàngat mettit ak naqar ak coono nan lañ koy supporté bañ di jàmbat koor gi dafa tàng koor gi dafa lii koor gi dafa raa ndax sa sëriñ bi nga xamee ne moo la may jàmm tey moo la may dund gii nga am tey koor na koor goo xamante ni yow boo ko fàttalikoo da nga xam ne yow kóoroo asaka jaw ja ndax koor googu mu jógee foofu ba mu ñëwee nee nañ jant bi doon waaja soo bañ koy waajal ndogu ju ko ko jox waane mu mujjul sax ndogu ndax bi jant bi waajo so landaw la ñëw ne ko gouverneur mi ngi lay woo mu bàyyi fa ndogu la ak i demee waa demee ca lañ ko dugale woon ca néeg boobu ngeen dégg ca Ndakaaru lam fa fekk néeg ba fekku fa ndogu fekku fa ndox fekku fa tàndarma fekk fa lu ma fekk ay mettital ay dëgg yu koy jam ay ngar yu koy matt ay coono la fa fekk noonu la fa fanaanoo ba xëy suba ñu jël ko togal ko ci bato bi yóbbu nga xam ne koor googu mën nañ ne dugg ko noonu la ko kooree boole ko naqar ak ay coona ñu yóbbu ko na ci natt yi nga xam ne am na ko ci wér ko fa yóbbu mu dégg ngeen kooram googa googa nga xam ne waroon na ko fa mooy woor na ba ngoon jot ci tumuranke ak sonn ak wéet xool nag mbooleem ay bagaasam gisul lu mu dogee du ndox du tàndarma du lu ñu jëfandikoo waaye nu mujjee def dafa dem jël ay xobi garab wattu ko di ko muucu ngir mën a dog ca dog kooram gi def suna si kon loolu lan lay tegtalee mooy kon sunu borom defal na ko ci ay natt yu metti ba mu ko dogee ba koor ga jeexit amul sax lu mu génnee muurum koor amu ko ndax lan booba nekku fa amul ko koy jox te yóbbu mu rànke googu am ñàngat wut te nekk lu ñuy dégg rek nekk loo xam ne dañ koy eskay mu daal di jeex waaye dund la war a doon ci ñun mooy lan ñeme coona ñeme metteet ci jaamu yàlla mu jaral la lu ne mu jaral la lu ne loolu moom leçon bi nga xam ne war nañ ko cee jàngat leneen li ci topp mooy ci loolu nag suñu borom moo tax mu defal ko ci ay xéewal yu bari ci weeru koor ndax nee nañ wirdu maxfuus bi sunu borom mi ngi ko jox ci weeru koor am na sax ñu préciser ne ci guddi lay laylatul qadri gi ñu tollu tey ci la ko jox nga xam ne ko yoon bokk na ci li nga xam ne moom sunu borom xéewale na ko ci weeru koor te loolu moo ko ñaanoon sunu borom ñaanoon na sunu borom mu may ko wird loolu boo jàngee téere bi ñu naan wakkaan xaqan leeral na ko ci ndax euh, maanaam deyaale na ak sunu borom ñaan ko ngir mu jox wérdu moom nga dégg ma naa jeytu rabbiya bi chahri ramadan chahril amaani wal muna wal fayadaan mooy deyaale na ak sama borom ci weeru koor waaw ngir rek deyaale ga mooy lan mu jox ko wérdu ma xuus ñoo xam ne loolu la nag sunu moo tax nga dégg ko samadu qad aw li fi ramadan maarumtu minka xablahu bi fayadaan mooy kon loola ma la doon ñaan nga digoon ma ko ci weeru koor ran kabiran wa sawaban wa jaza wal waadu lii fi ramadana najaza mooy dëgal ga nga ma dëgaloon ne dinaa la jox wirdu wi dëgal booba rendez-vous booba jox jox nga ma ko te ci weeru koor nga ma ko jox kon loolu day bokk ci li nga xamante ni sunu borom xéewale na ko ci weeru koor ngir sonn ak bëgg ak fonk koo xam ne fonk na ko fonk fonk na ko ko léegi nag ñu ñëw ci comme waxtu wi day dem te suñu waajur yaakaar naa suñu xaarim si la am na war na ci def ay waxtaan ci guddi gi ñu koy may kii weeru koor ak ngëneelam suñ tubaa ngëneel yi nga xamante ne ni nan la leeralee ngëneelu weeru koor ndax suñ seexu naa am na lu bari loo xam ne leer na ko ci laylu xadr waaye lépp rek ñun dañ ko bëgg a sukkandiku rek ci li nga xam ne mi ngi koy jàngale ci ay téere suñ tubaa leeral na ko ci naan faazal lazina xaafazu ala siha ngëneel yi nga xam ne weeru koor am na ko ak tedd nga yi nga xam ne am nga ko ah, am na ko boo ko bëggee xam jàngat ko da ngay jàng xasiida googu ñu naan faaza allazina faaza allazina xaafasu ala siyaam shahrin bihi ughliqa baabun lil iyaam su jubaa foofu dafay leeral ngëneel yi nga xam ne moom la weeru koor am waaye li am solo mooy xaafasu ala siyaam mooy ñi nga xam ne dañoo wattu weeru koor waxut saamu mooy ñi nga xam ne dañoo woor rek ñàkk lekk ñàkk naan mais ñi nga xam ne dañoo sàmmonteeg àqi weeru koor ndax sàmmonte bokkut ak rek woor ñu ko sàmmoonte la wax ne ngëneel yii bu ëllëgee yowmal xiyaam sunu borom dana leen ko faye ngëneel ya mooy yaraw na bokk na ci dañ koy tënk rek afdala futurin fil qubuur wa fil qiyaamati minal mughnil kabir bokk na ci ngëneel yi nga xamante ni aji woor ji fii ci àdduna boo liggéey sunu borom subhanahu wa taala ko fayee mooy ay ngën ji ndog ngën ji sunu borom nag bu la diggee ngën ji ndog mel ni ki président bu la woowoon ne defal ndogu lu neex di xam ne ne boo fa demee di nga fekk lu neex sunu borom nag bu la diggee ne la yow bi nga xam ne da woor weeru koor boo ñëwee naa la yox ndogalu neex rawate nag sa bàmmeel kon nga xam ne kon ndogalu la sunu borom di waajal boo ëllëgee yowmal xiyaam tey ci woor sa koor gi loola ndogalu day la war a doon diyaafatul baaqi la dal jinaani tamxu ana alsawmi bi imtinaay mu ne sunu borom na muy ganalee bu ëllëgee yowmal xiyaam ñi wooroon da leen fàtteloo seen coono yi nga xamee xamante amoon nañ ko ci àdduna nga xam ne da nga ko amoon ci subhaanahu wa taala ma mal xiyaam mooy ajru lazi maa indahu laa yanfadu ajran kabiran maa taraahu nafadu mooy fay dana la fay fay goo xamante ni fay gudul jeex la fay goo xam ne du mas a jeex day éternel fii ak yaa nga àjjana rek fay ga dafay dal di des bu mel ni ki ñu woor ñi boo ëllëgee yomal xiyaam buñ toogee sunu borom subhaanahu wa taala day mel ni da leen ni woo ne ay na duyufu rahmaan ñan ñooy ñi nga xamante ne ñoo doon ñooy gan yàlla yu mel ni xam xàmmante wuñ julli ñi xàmmante wuñ mu mel ni suñu danee nag ñoo ñooy malaktumu nufuusa fi nahaari yan xuuli xayrikum zawintihaari ñi nga xamante ni ñooy doon gani suñu borom ëllëg yowmal xiyaam mu wutal leen buntu spécial bu ñu naan fa la leen di jaarale mooy ji nga xamante ne ni bu weeru koor jotee dañ koy woor ci ñàkk lekk ak ñàkk naan waaye moom seen bopp ci seen bakkan ak lépp loo xamante ak mooy yàlla la boo léegi moom sunu leen di woor yan bu leen wooyee bañ wuju wuyu wuyu ba ñëpp daal di wuyu nga xamante ñoo di yuuf rahmaani mu ne abwaabu jannati naimi futtixat li saaimina wal jamiun fataxat mooy yen ñi nga xam ne yéen daan woor yéen ñi nga xam ne na fonkoon weeru koor bunti ajjana yaa ngoog choisir leen ku ci nekk xoolal bu la neex nga tàbbi ku ci nekk xoolal bunt bu la neex rek nga sa defal subaa nga tàmbali ko mooy abwaabu jannaati naimi futtihat bunti àjjana yépp la ubbi nga jàkkaarloo moom li saa imina ñoon ñoo tax mooy ñi nga xam ne ñoo doon war wal jamion fatahat bu ngeen xasee dugg nag sa taalamuuna anna rabbakum karim wa anna indahu mooy bu da nga xam ne dugg ngeen noo xamante ne nii ak moo tax mooy chakartumullaha ala shahri shahri siyaab sa tadxuluuna jannatan duna iyaam kon nag sant leen yàlla ci weeru koor neen la weeru àjjana la weeru barke la weeru yiw la kon mbokk yi ñu bañ a guddal dañ ne woon rek nañ ci barkeelu tënk ndax niñ jotee ci waxtaan bi moo tax di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon topp suñu borom nangu seenu koor ak mbooleem ñi nga xamante ñoom lañ ci fekk leen wax waa axiru daawana naa alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu si Mouhamed Diatra bu baax a ci turu mboolam mi nga xam ne ñooy taxawee jotaay bi di am mbégte lool ci teewak yow ci jotaay bi mel nii ak gaaral gu am solo gi nga xam ne gaaral nga ko waxtaan wi nga xam ne moom lañ la joxoon ci topp gi ñu ko doon topp dañuy gis ne Seydi Mouhamed jaar na ci ay. barab yu wutee yoo xam ne séddale na ko ci waxtaan wi loola la ci njëkk mooy xamale weeru koor sukkandiku sëriñ Tuuba loo xam ne lu jar a bàyyi xel la mooy koor niñ koy jàppe la tattaquuna ji ñu waxoon ci njëlbéen ga te yàlla sunu boroom ni jeg jegleel war ko boppam te ñëwoon ci xadisul qudsi bi nga xam ne annasaa'i imaamu nasaa'i moo ko nettali wax ne assawmu lii wa ana ajzi bi mu wane xam gi nga xam ne suñu boroom wala waxi suñu boroom ba mu koy jëmmal ci jëf ñu mën koo gis ngir mën cee roy loolu tax génn na ci njàngalem Sëriñ Tuubaa wane ne koor kat am na ñetti façon koor yoo xam ne am na koor goo xam ne ñëpp ci yem ñëpp ko man loolu nag képp kuy jullit boo xam ne daa ngi góor da danga war a mucc ci koor googu moom koor goo xam ne day mel ni ku ki sàkku lu gën boo moom day fas yéene romb ko mooy goo xam ne lekk ak bàyyi lekk bàyyi naan ci la yem te ñooñu indi na ci Sëñ Tuubaa lam ci wax ñi nga mooy ñi nga xam ne ak xiif rek la ñuy amee ci seenu koor mu wax ne buñ jàll wàll geneen ko ñañu jaamu yàlla moytu ay ay safaan seeni jaamu yàlla day yokk waaye ñooñu mooy jàmbaar yi nag waaye am na ñu gën a jàmbaare mooy xaajum ñetteel bi mooy ñi nga xam ne dañuy dem ba seen xel sax du xalaat lu ñaaw te loolu nag yépp ndekete lu sëñ bi jëmmal la loo xam ne wax na ne ngir am sëñ bi jàngal na ko rek war na su ko man dañ ko man moo tax mu jàngale ko kon tom boobu la njëkkee ba mu jàllee ci tomb jàll na ci tomb boo xam ne dafay wax ci sëñ bi ñi mu sonne woon ci weeru ci weeru weeru koor ak yitte ji nga xam ne moom la ko joxoon bokk na ca lam ca tudd mbég gi nga xam ne sëñ bi daana ko bég waxtu woo xam ne weeru koor jublu na ay nettali yoo xam ne lu am la ci jamono sëñ bi ngir jublu gi ñu ko doon jublu ci ay aajo bu weeru koor jotee dañ ci sawar lool ndax xam ne day day faju bokk na ci loolu mooy gatandu gi nga xam ne sëñ bi daana ko gatandu koor gi ay xasida yoo xam ne tudd na ci yaa xayra yaa xayra dayfin ata boobu te te te te mu ko am solo day mel ni man foofu damay yow moom xasida day mel ni da ko waroon di jël di ko jël par benn di ko jàngale ndax ni nga koy ni nga koy ni nga koy eh, tanaawule moom eh, day mel ni man gisaguma ko ci ci leer ak ci jotal kon lu jar a bàyyi xel moom bokk na ci li nga xam ne sëñ bi sonnee na ko woon ci weeru koor mooy sëñ bi daan teral weeru koor nga xam ne da ko jàppee daan gan goo xam ne dafa ñëw te gan nag boo ko amee fa mu bawoo day mel ne day feeñ ca ni ngay terale gan gi waaye nag gan goo xam ne dafa bawoo ca yàlla sunu boroom dikk day mel ne sëñ bi tamit xam ne ni mu ko war a ni mu ko war a terale te jàngale na ko ngir képp koo xam ne dangay gëstu bëgg lu baax da topp loolu ngir mën ko teral gan googu wane ne tamit gane gan googu nekk da ñëwut ak loxoy neen dafa indale sëri ci yoo xam ne yu am solo la bokk na ci li nga xam ne jar na rek sawar ci gan gi ak teral ko mooy tënk gum lay tënkal seytaane seytaane mi nga xam ne lu yàqu rek moo ko yàq gan gu ñëw di la ko tënkal kon kooko jar naa mën a bàyyi xel lool jar naa góorgóorlu tamit ngir mën a jot ci li mu li mu indaale wax ne ne sëñ bi loola tamit ni nga ko daan teertoo bu daan dem tamit noonu la daan yëf yi day mel day tiis lool ci moom bu gan gi dem da koy tàggu di ko bindaat yeneen xasida di ko wax boo jëmee ci xasida gu nga xam ne mooy yaadal bushaaraat ci sëñ bi yo ngi ko ci junju ca tarjumaan ja di wax ne allahuma inna xabibi wa xalili wa tabibi shahra ramadan araada al insiraafa anni yowma thulatha walam amalla yowma thalatha ilayk wala maa anni lam amalla minhu walam astagni anhu maanaam Sëñ Tuubaa wane ne moom dal weeru koor bii kat del lu ma ci de lu ma ci yoxtuma ci loolu nag ay jàngal la yoo xam ne yëpp ñun ñi nga xam ne dañoo askanoo ci yoon wi war nañ cee war a bàyyi xel baax a baax loolu tax Sëñ Muhammad tamit dikkaat na ci beneen ponk boo xam ne day wane yoon wi nekk dafa am relation ak koor goo xam ne moo leen tënk ñoom ñoom ñaar loola day wane yitte nga xam ne rek dikk gi dikk di jëmmal jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loola bokk na ci natt yi nga xam ne da koy dal yu ci bëri da koy fekk mu nekk ci jamono yu koor loola tamit bokk na ci may yi nga xam ne am na ko yu bari da koy tudd di wane ne ci weeru koor la ko la ko am kon loolu lépp day wane yitte ji nga xam ne weeru koor moom euh, am na ko dayoo bi mu am ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu yoonu murit ginnaaw loolu tamit indi na ci li nga xam ne mooy ngëneel yi ngëneel yi nga xam ne mi ngi ci biir weeru koor te loolu sëñ Tuubaa wane na ko ndax bind sëñ Muhammad indi fi xasida goo xam ne faa faazal ladina xafazu ala siyam mu leeral ko ci leeral yu am solo nga ne sëñ bi di ci wax yépp lu am solo yi nga xam ne moo ne ci ginnaaw koor ci képp koo xam ne taxawe nga ko gën ji eh, taxaw kon loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne sëñ Muhammad indi na ko te muy lu am solo loo xam ne manees na ko mares da ko jëriñoo lool ci képp koo xam ne yaa ngi ko doon euh, déglu di ko topp kon bala ñoo dem ci euh, rot na fi yoo xam ne kàddu euh, ndax dafa am solo lool ngay toog di gaaral sam njàng ci sa waajur toog di la déglu bu baax bu ba pare faw mu wax ci la nga xam ne nag moom la ca moom la ci mën a jubbanti ñu jubbanti ko bisimilah. Eh, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi yeesal sunu nuyoo ak sunu eh, waa daara ji yépp siyaare sunu mag di sunu kilifa Cheikh Mamadou Moustapha eh, gannaaw bu ñu jiitalee nag sunu siyaara ci Cheikh Mamadou Mountakha xalifatul am di ñaan yàlla yàggal ko fi. te may ko wér naal mu tàmbali yëpp sunu borom àggale ko Cheikh euh, Mourtada ñu ngi am mbégte ak xol bu sedd ci sunu ñaari doom yi nga xam ne ñoo méngoo woon waxtaan wi la ma seen sàmbay waxan jëmmi jamono ci waxtaan Italie danaa ko wax ci ñoom muy xel mu dal sëkk ci ne e Sëriñ tubaa loolu mu doon ñaan e sunu ñaan ci ñi ko gàttal yoonu rafet mooy waxab lanaa zuriyatan tuddiimu al amala saaliha yaa qadimu zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu ndax niñ ko doon waxee ca waxtaani keroog yi rek sëriñ bi yow moo xam waxoon seen maam soxna faatimatu lépp loo xam ne lu ma jàpp ne lu ngeen mënta ñàkk la ci luy yéwénal seen wàllu àdduna ak lu leen di may ak texeg ëllëg ak mucc ñaan naa ko sunu borom waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom mooy lépp lu aju ci loola bu bu ngeen demee ba war koo am da ngeen di laxasaayu jaar ci yoon wi ñu koy wute def ca la ngeen am man ko lépp su ko defee yërmande yàlla ak ñaan googu ñu leen ñaanal mën leen a gàttal ko bu dee lu ngeen di dawit wala ngeen ragal ko da ngeen di fëx wan ko gannaaw su ko defee ñaan yu ñu leen ñaanal ak yërmande yàlla mën a jaar seen diggante ak loola waaye kenn du toog fa mu fa nga toog naan na ma fa fekk kenn du ko wan gannaaw it naan na ma dab kon gàttandu googu mooy li ñu def ñoom et boo déggee ñoom ñaar ñëpp seen waxtaan kenn ku ci nekk sëriñ Cheikhouna bi njëkk a jël et amaana ilmiya bi mu wane ci laylatul qadar ni mu tëddee ak li ci borom xam-xam yi wax yépp e, mu andi ko waaye delloo nit ñi nag ci li nga xam ne mooy ak wuute yooyu ak lan ca mën a jariñoo mooy comme ki yàlla yónni subhanahu euh, sunu borom euh, yónni ko moom sallallahu alayhi wa sax e moom lañ ko euh, nëbban ba lool lu lu mën a wax ne lii rek mooy la ci wér lu bàyyi ko ci moom amut waaye ay wax yu bari daf ci am loola kon sirru ba mooy bu agsee kenn ku ci nekk rek ci ni ko sëriñ bi misaale ci bunt ba e e bunt yu bari e yoo xam ne dañ la ne benn ci bunt yooyu daal li ngay wut ca la ne ngir nga daje ak bunt yëpp rek fa tabaarakallaahu da nga daje ak moom kon mu mel noonu <coughs> mu am nag loo xam ne tey li wax sunu maam di seen maam mos naa ko koo laaj mu wax lu dëppoo ak lii mu sëriñ Abibu Mbakke bi ma ko laajee sëriñ bi ak euh, laylatul xadri damaa wax ne moom day euh, la mu doon def moom xëy na sax kenn mënu ko maanaam jéem ko moom bu dee jëmmi at bi moom at mu yëpp da ko jàppe moom laylatul xadri bis bu nekk rek guddi gu nekk day jàpp ni gii mooy leetu xadar mu ne ku ko mënta defee noonu nag weer wii nga xam ne ñaar fukki fan rek fan fan weeri fan rek la wala ñaar fukki fan ak juróom ñeent te naa wax ne moom xadara wax nekk ndax ay alxuraan yi yëpp dëggal na ko kenn ku nekk nag sa yitte war naa man comme fukki weer ak ñaar mooy at bi weer woo moom bu agsee guddi gu nekk nga jàppee ko leetu xadara kon moom boo ko defee dana la wóor ne moom laytu xadar rëccu la mu ne bu fekkee nag loolu waxam bu fekkee ku mënul lool yi nag nga seet bis yi nga xam ne ci la góor yàlla yi wàkk nga dàkk yépp rek ñii nee ñu ci kii ak lii nee nga nga dàkk dàkk yooyu mu ne bu boobaa sunu sunu borom subhanahu mën na laa dajale ak loolu te mooy buntu yi ñu wax nekkat kat fii la ne buntu bu nekk nga ubbi ko kon muy ay maqaamaat yu bari maqaama sëriñ bi mooy at mi ah góor yàlla yu bari yi ànd ak ñoom mooy weer mooy weer wi bis benn bu nekk ku mënta def ñaari maqaama yooyu maqaama mu mujj bi moom xanaa bis yi nga xam ne eh, dàkk nañ ko ci nga xam ne bu baree ba bari ëppul xëy na ñeent wala juróomi bis benn pana muy kon eh, wax dëgg yàlla sëriñ bi ni mu ci leeral ñu ngi ko ci sant bu baax ci ni mu ko indee et bi ñu ñëwee nag ci suñu doom ba tey euh, Sidi moom itam fa tabaarakallaahu comme ni nga waxee ni mu ni mu ni mu indee <laughs> yaa xayra dayf ak euh, ni mu ko présenté ci euh, sëriñ beeg yóbbal mu tënk ko war dundee loolu itam lu am solo la comme noonu nga ko waxee ci xasaay di toujours noonu di ko conceptualiser di fexe ba di ko présenté ci anam boo xam ne it day jege nit ñi loolu dafa bokk ci lu lu am solo lu mel ni lañ doon waxtaane léegi ba tax na kon e, ñi ngi sant bu baax e, di leen ñaanal e, yàlla taxawu leen bu baax a baax ba yéene ji ñu am pour liggéeyal seen maam xaadima rasul ak téye ndono li et sunu borom defal leen tawfiix ba bañ bañ bañ am benn gàllankoor ci loolu waaw ndax nag lii rek la lii rek la lii rek la sëñ bi doon ñaan jamono dana yàqu Eh, waaye maa ngi ñaan sunu borom buñ demee ba man ak ñi ma àndaloon doon liggéeyal yàlla bu ñu demee ba eh, wan gannaaw liggéey bi du jamono yàq-yàqu noo ngi sakku nga may nu ay sët ak i sët sëtaan yoo xam ne danañ ci wuutu di dund liggéey boobu ak di ko dundal ñaar yooyu dafa am solo mooy tujaddidu ak taj tajidu tujaddidu mooy liñ fi bay nga aar ko ba du yàqu du wàññi xam nga mën naa bañ a yàqu euh, waaye wëlim bi wàññi ko wëlim bi mën na ni ngi nekk fii te biir yëpp ay yàqu-yàqu nekk mais aar ndono li nag ba nga xam ne du yàqu waaye du wàññi ko kooku mooy tujaddidu tey tey yu rek mooy ijtihaad bi nga xam ne moom la ulama yi def ci fànn genn gu ne mooy buñ ko aaree loolu ba noppi nañ am yitte ak ijtihaad bi al doon a defan ci funoonu eh, yépp ak majaalaat yépp ba ndonol it lépp loo xam ne lu lu jamono laaj ci luñ ca war a dolli lu koy lu koy gën a eh, yaatal ak luy gën a tax ñu mën koo dégg loolu it nañ def loolu loola moom la euh, sunu doom suñu seexu naa def euh, ci ci téeréem boobu euh, fatul loolu mooy loolu ndax loolu la sëñ bi ñaanal fal tax sudoo arbaatan indabtidaat taallumuy li koy tafoosu bil udaa awalu al xuruju min dalal xuruju min dalal boo ko jëlee ci contexte bii ñu toll ci maanaam enseignement moderne mooy li tàmbalee ci ihdaadiya ba sanawiya parce que mooy si nafsika min jahli kulli ma bis dana ñëw génn sa bopp ci lépp réere lépp loo xam ne bis dana ñëw nga woo koo xam moo xam ci wàllu adduna moo xam ci wàllu alaxira la fexeel ba génn ci sa bopp loolu nag bu xasee ba am mustawa ci sa bopp ndax loo xamutoon foofa it am nga possibilité mën koo xam ba ci topp mooy wasaani naf u xalq sil mooy taxasus ci jaamia parce que jaamia tànnawaxu bi ci am mooy nit ki xam ne léegi du boppam léegi du moroom yi nitam déedéet gëléem gi bu amee problème ku koy faj xar mi bëy wi garab yi problème biologie yàlla mooy xalifaam ñépp ci ñoom ci ci doomu aadama la ñëw vétérinaire bi wala ki yor garab yi cosaan yi bu xal kii it partu kifaaye la kii jàngi vétérinaire kii jàngi médecine moderne kii jàngi biologie kii jàng lii kii jàng lii pour mën a nag xal ko ci jalaal lépp bu ñu àndee mën a daje kooku mooy daraasal jaam yi tax saalisu al ihya lil ulumi mu ne ah sëñ seexu naa sëñ Muhammad xam-xam bi leen indi ba ngeen yoon seen master 1 ak 2 bii kat indiwu fi boppam téere ya ngeen ko jànge ay borom yi xam-xam ñoo defoon itte ba dajale ko mu nekk ay mawaad ilmiya ngeen sukkandiku ci kon nag fi ngeen ko fekk bu leen ko fa bàyyi ixyaa muy darasaatu ulya ixyaa ulil ulumi benn ci saraa li nga fi fekkan wala nga tax taxqiq ko wala nga yaatal ko ba indi ci lu yees loo xam ne tey ku ñëw xam ne kat fa nga ko fekkan bàyyi woo ko fa kooku mooy darasaatu ulya mooy li ngay di def waraabiwul amalu bil maalumi ah bu leen jël nag tees yi jàng ko ba àggal mu génn ak lañ ca daj ñu def ko nag ci biir kii rek kenn du ko diir déedéet voilà donc kon fa tabaarakallaahu <laughs> jërë ngeen jëf kontaan nañu lool <laughs> tabaarakallaa waa kon di dellu sant bu baax a baax rek kàddu yi nga xam ne suñu waajur docteur Khadim la jàllan la ko ne kàddu yoo xam ne kàddu yu dal xel la ci njaboot gi nga xam ne ñi ngi góorlu ci wàllu xam-xam ginnaaw ba ñu leen ci tege ñu koy sante suñu borom nag sant suñu boroom bi nga xam ne moo ñu tawfiqale may ñu ñu jaar ci yoon ñu jaar ñu ci yoon wa ñu yëpp caa jaar ba tax ñu toog di gaaral suñu waajur toog ba noppi ñu jël yëkkatiwaat teg ja wane na kat yoon wi ngeen jaar jaar leen kudd leen ci moom la loolu nag aw sas la woo xam ne wuy dolli ca sasu wa nga xam ne moo nekkoon ci suñuy ndott lay doon kon ñu ngi koy sant bu baax a baax si ko ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla suñu borom yokk tawfiq yokk ko wér man ci jublukaay jubluwaay yi nga xam ne moom loo jublu ak li muy liggéey ci wàllu di ko liggéey lislaam di ko liggéeyal réew mi ñëpp xam ko di ziarwaat suñu waajur bu baax a baax suñu sëriñ sëriñ Mouhamadul Moustapha Jatara di ko ñaanal moom it yàlla suñu boroom dolli ko kàttan dëgëral ko bu baax a baax ci liggéey yi nga xam ne moo koy liggéeyal di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal yoonu murit te képp daa def lañ fa war a def kon ñaan yàlla suñu borom ñi fi nekk ñëpp yàlla suñu borom dool kàttan ak man-man liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko fi def muy liggéey bu bu bu eh, rot na ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp waxtaan wi ci mboolem Euh, biir réew mi wala bitim réew jaar ko ci jumtukaay yi nga xam ne mooy yu xarale yi nga xam ne mënees na ci mënees na ci topp jotaay yu mel nii di dellu di santaat nga waxtaankat yi di suñu mat jërëjëf sëñ mutulaal boobu naa kon profité ak waxtu wi rek ndax dafa am beneen émission boo la jàll dañ ñëw ci laaj rek mu ne kii day laaj lu tax leeratul xadar am ay wuute lu tax leeratul xadar am ay wuute waaw loolu de xam naa ngir tontu ci moom defe naa bu fekkee topp na waxtaan bi dana ko dana ko mën a xam ndax mooy ne <clears throat> suñu borom moo nëmmut maanaam mu feeñ mu fixé wu te it bu ñu demee ci hadis dañu gis ne hadis yu bëri ñëw na ci waaye daa wuute te yëpp wér na. subhaana taala daa bëggut nit ñi jàpp bis bi moo tax wuute gu ko am ci waaye bu fekkoon ne moom moo ñu ñëpp xam ko ne guddi sàngam la kon suba du am wuute. waaye yàlla moo ko namee noonu loolu man moom mënee su ko layal moom mënee su mënee su wax ne yàlla déedéet def na ngeen nangam xëy na lañ ci mën a jàpp rek mooy da ko def ngir nit ñi mën a farlu ci guddi yëpp ba mën koo jàpp ndax su ko yemal yemal ci benn guddi rek kon mën naa am ñu mel ne man dañuy dañuy yem ci guddi guddi googu rek loolu xam naa bokk na ci tax euh, suñu borom la bëgg jërëjëf sëñ Cheikh naa ci tontu bu am solo boobu ndax day xaarim tontoon intervalle hmm. day ñëw ci ñetteelu laaj bi rek ki day laaj mu ne nan la sëñ Tuubaa daan mel bu weeru koor bi mosaan teru waaw loolu dafa mel ni bi ñuy commencé leeral nañ ko kon ni ko waxee woon rek sëñ bi weeru ko daan teertoo ca rajab ndax comme li ma leeraloon ne daan gàttan bi mooy ngelaw li chambaan bi mooy xiin bi weeru koor wi mooy taw bi moom foofu daan commencé ñëpp xamoon ko ci moom ba bu masaan di teru di ñëw nit ñi dañ daan fees ci këram ngir dafa jël ay hadaaya ngir ne mbégte mi mu daan àndal kon moom noonu la ko daan waajalee bu dee euh, comme borom xam-xam yi dañoo wuute ci guddi gi ñii dañoo jàpp ne ci at mi la ñii jàpp ne weer wi la ñii jàpp ne ci fukki fan yu mujj yi comme ñoo ñëpp loolu lañ jàpp sa Tuubaa moom bu ci ne lay gum gis rek nettali bu mu démb boo xam ne bu am solo la genn guddig layatul xadri goo xam ne dafa mas génn ci njaay

jërëjëf sëñ Mouhamed ci tontu bu am solo boobu ci ki day laaj doona ko yaa man laylatul xadri taroom ak bayit bi ñu wax lakkasum ndax wér na sëñ Tuubaa xaj addi sana loolu ku dem ci téere bi danga ko fekk waaye daal man ci samay gis moom mënumaa dagu ne si ko wax tey la muy nuru moom day wane daal lu mu nettali la loo xam ne euh, lu waxoon la mu ñëw nettali ko loolu lay nuru te it euh, li ne maanaam wax ko mooy bi ñu gisee moom ni mu doxalee mooy moom tënku nit ñi rek ci genn guddi ne guddi gi lay doon ndax am na ci mag ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne fekk du mën a a mën a bañ a demee noonu loolu laa ci mën a mën a tontu. jërëjëf sëñ Cheikhouna ci tontu bu am solo boobu xam naa dañ ci profité di sant rek ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi waxtaan wi fii ci maktabu Cheikhul Khadaare Kamil lu mel ni télé bi di Touba Vision Bichir TV al académie mi naan ñu ngi sant bu baax yéen ñi nga xam ne ñoo ko doon bàyyi xel rawatina waa extérieur am bu waxtaan wi jàll. beneen jotaayu majalis ñu koy ànd ak suñu bi di isaalu salik kon bu ko defee rek suñu seex naa mën ngaa ñëw ñu ngi sant bu baax yéen ñi xam ne ñoo doon amal waxtaan di suñu seex naa di suñu seex naa Mbàkke ibnu suñu Mouhamadou Bourala Falilou ak suñu Mouhamed Diatara modérateur bi suñu waxtu yi mooy xaw a sori sax waaye mel na ni gën naa bëri yooyu xam nii rek am na yu mooy ñëwaloon waaye waxtu yi moo tax kon daal dañuy dellu di santaat mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi doon déglu waxtaan di ko topp ci jumtukaay yi nga xam ne moom lañ moo jàppandi di sant ñi nga xam ne teewoon nañ ci mit ci jotaay bi ak ñi nga xam ne yone nañ seeni laaj moo yi jàll ak yi nga xam ne jotut a jàll di sant sëriñ Seexna Mbakke di sëriñ Sidi Muhammad di kat daara ji di maktabatu Cheikhul Xadim ci njiitul suñu waajur Cheikh Mouhamadul Moustapha jatara kon ñu leen di dig daje rek ba suba ak jàmm incha allah ci yeneen waxtaan ak yeneen borom xam-xam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu